Maria Cardinal ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. voilà yow nga bokk ci collectif autorité parentale partagée sunu yitte nga yore itam li nga xam ne moo di seen euh, communication seen kàddu euh, ndax mën nga ñëw wax collectif bi euh, naka ngeen def ba taxawal ko idée bi fan la jóge collectif bi mu juddu si benn post bu Ndeye Maguette def Facebook. Mhm. et bi ñu liiree commentaire on a vu que là ça c'est un problème. Mm -hmm. puisqu'on avait puisque amoon nañ benn groupe sax boo xamante ni bu combat amee les les mêmes personnes qui sont ñoo koy porté dañu yaatal groupe bi comme ça ñeneen ñu mën ñu rejoindre. Mhm. te bi ko yaatalee ba léegi si lañ am ay témoignages yoo xamante ne bu gën a daw yaram nga ne bii la témoignage yu góor comme jigéen. Mhm. te nag ñoom dañoo nekk victime si fléau bii nii ñu ñu ñu ñu porté combat ñu porté. d' accord ndax am ngeen ay cas ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ay jigéen yoo xam ne am nañ jafe-jafe ndax autorité parentale moo lañ ko yóbbee. am ci ay am nañ ci ay témoignages yu bëri parce que aussi s' est constitué dañu constitué wu ay sous commission. Hmm. am nañ commission boo xamante ni moom ay témoignages rek lay lay recueillir te témoignages yi boo si lii wax dëgg fa yow sa bopp da ngay sax jaaxle sax da ngay naan ndax lii nii am na si dëkk. Mhm. d' accord euh, laajuma ko sànq ci tubaab mais est ce que euh, da ngeen di accompagner jigéen yooyu noonu ba ñu am lu ñu bëgg ci seen doom. oui waaw dañ koy def parce que collectif bi am na ay membres AJS. yu si mhm. nekk bu ñu appee yenn cas yu mel noonu dañ leen di référer juriste yi ñoom ñu mën leen gunge ñu mën leen teg si yoon parce que day baax aussi balaa ngaa ne lii laa bëgg. Mhm. nga xam li la yoon may. parce que ça c' très important. donc bu ñu leen bu ñu yooyu juriste yi ñoom dinañ leen mën a accompagner. Mhm. ñu wax leen ni boo jaaree fii boo jaaree fii sa aajo dina faj. d'accord jigéen ñi bëri na ci am ñoo xam ne dañ ciy am jafe-jafe chaque jour nga gis ci benn cas ndax am na kaa bi nga xam ne moo la ci gën a marqué yow. waaw am na cas boo xamante ni moomu si gën a marqué parce que femme boobu noonu euh, elle est de nationalité nigériane. Mhm. mais sénégalaise depuis le juddoo. Mhm. parents mi fii lañ dëkk. ex jëkkëram depuis bu ñu divorcé wee boobu xale bi mi ngi am ñetti weer ci la dem kenn gisu ko ba léegi mu dem ba heure bu ko neex dellu si ne moom dafa bëgg jël ay responsabilité am métti woon na trop si yaay mhm. mais ku am yaay bëgg nga am papa parce que des fois day baax aussi xale yi seeni avis mhm. naam ko ñoom buñ ko waxul mais ku am yaay bëgg nga am papa des fois dañuy jàngi ñuy dégg ñu lay naan ah yow de moo papa mhm. donc yaay jooju dafa bës xolam permettre papa ji mu dellu si waat dugg si vie xale bi mais naka la duggee si vie wu xale bi ñaari fan ñetti fan mu defaat ni mu def demaat yoonam ñëwaatul. Mhm. aujourd'hui te da koy menacé ne ko day sàcc xale bi. Mhm. femme boobu noonu doom ji tey am na 11 ans. Mhm. mu ngi si dëkk bi fii nii mais day obligé nëbbu doomam. pour ne pas que ex jëkkëram ñëw sàcc xale bi yóbbu ko. métti na parce que déjà fii la juddoo femme bi fii la juddoo mais amul nationalité sénégalaise ba heure bi may wax ak yow. moo ma gën a dégg olof man nii di wax mm-hmm. Mm-hmm. mais depuis boobu day nëbbu day day nëbbu doom ji doom ji fii lay jàngee mais da koy nëbbu mm-hmm. pour ne pas que ji dellu si sàcc doom bi dem te ndax bu ndax yoon may na ko mu yóbbu doomam parce que loi bi loolu la wax en sa qualité de chef de famille ku góor ki moom moo yor autorité parentale bi tey bu génn bu naree génn xale ci dëkk bi mais kenn du ko laaj foo ko jëmee et bu dee yaay ji la dañ lay naan demal uti autorisation donc xam nga ne que il est nécessaire pour ñu xoolaat. disposition mm. yi nekk ci ci article yi nekk ci code bi. dëgg la dinañ ci ñëwaat sànq ci euh, code boobule euh, euh, objectif collectif bi lan la Maria. objectif collectif bi mooy xeex déjà te sa sa posé nañ ci benn débat boo xamante ni que ñu bëri on a poussé les gens à réfléchir poussé nañ pour ñu génn parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ko doon dund dañoo toog noppi waale ko. mais depuis que bi ñu posé débat bi nit ñi dañoo commencé yeewu muy góor muy jigéen nit ñi sujet bi intéressé na leen pour ñu xam lan mooy lii lan mooy lii parce que ñoom xamuñu ko woon dañ doon jànkoonte problème yooyu noonu mais musuñu comprendre mhm. mais depuis que lii am parta ñu ngi partagé ay ay ay expérience parce que góor comme jigéen dina ko euh, dañ ciy dañ ciy wax et que collectif ñu teg là léegi ñu nous sommes à presque cinq ci membres si rien que le groupe WhatsApp mhm. et parce que am na ñu nekk saint am na ñu nekk Mbour xam nga am nga am na am ñu nekk si Ziguinchor. si mhm. yeneen région yi. parce que lii liggéey boo xamante ni que duñ ko def tey tey tey tey mais liggéey boo xamante ni que c'est sur le long terme. Mhm. d'accord euh, Maria bu waxee autorité parentale mooy lan exactement ci dégg-dégg. autorité parentale mooy que comme yoon. Mhm. et diine aussi dafa wax ne que góor mooy kilifa moo yor. ak ak yelleef ak mu moo yilif maanaam njaboot bi mhm. moom en tant que ki nga xamante ni mooy kilifa yoon may na ko moom mu jël décision bépp bépp décision ak bépp décision de plein pouvoir moom mu doxalee du ko ne si njabootam mhm. Mhm. dëgg la euh, ndax jotul donc ñu xoolaat li nga xam ne moo di code de la famille ñu amal ci ab révision effectivement jot na amal fi révision parce que code bi mi ngi fi depuis 1972 tradition yi xewoon 1972 mag ñu njëkk ña du léegi ñoom ñoo fi nekk ba léegi. Mhm. entre temps jamono changé na mhm. jamono dox na donc day baax parfois bu jamono di dox ngay dox di ànd ak moom. Mhm. donc jot ñu xoolaat ko ñu indiwaat yenn yenn yenn xoolaat yenn articles yi surtout ay articles yi nga xamante ne articles discriminatoires la ñu xoolaat. parce que dama koy faral a wax doom ñaari nit a muy papa ci yaay. Mhm. donc puisque ñaari nit a ko tëdd dëgg la kenn du ko naataate góor mooy kilifa jigéen loolu man weerante mhm. te dama koo sax far nangu. Mhm. góor mooy kilifa jigéen loolu diine yi fi nekk ñoo ko wax. te dañ koy nag. ñun combat bi mënewuñ ko jigéen contre góor déedéet loolu suñu loolu du suñu du suñu combat. ba tey loolu waxuñu ko ñun li ñuy li ñu bëgg mooy que ne que ñu xoolaat ko surtout. bu nekkee àq ak yelleef xale bi la ñuy xool intérêt xale bi la ñuy xool nañu toog ñu waxtaanee ko fépp mu gën a rafetee pour suñu bien-être doom. Mhm. pour li nga xamante ni moo toxal xale bi pour ñu mën a pour ñu mën a pousser xale bi mu avancé. Mhm. dëgg la euh, plan d'action bu njëkk bi ngeen war a teg lan la. plan d'action bi njëkk bi ñu teg mooy que dañu organiser benn sitting euh, samedi bi incha allah. de 9h à 13h terrain Sacré-Cœur 3 mooy bi nekk ci VDN bi. Mhm. dinañ fa dem toog waxtaanee ko dinañ am ay sociologue yu ñëw toog dinañ am ay psychologue yu ñëw toog dinañ am ay victimes également yoo xamante ni ku nekk bu nekkee d'accord nga pour partager sa histoire nga ñëw toog nga partager ko pour que. nit ñi mën a xam ne que lii lu existé la. je me dis ñenn ñi bu ñuy wax naan non lii yëpp tubaab yi nañ ci bëgg indi du yëfu tubaab des histoires histoire existé la fii Sénégal. Mm. et ñu ko dund ou tant que ñoom ñu nettali ko seen gémmiñ duñ ko mën a gëm parce que sénégalais lu muy gis dong la mën a gëm. Mm-hmm. voilà dëgg mais boo leen fa jógee après loo leen di def. buñ fa jógee nag après benn liggéey boo xamante ni que liggéey bu solide bu dëgër la ñuy def plaidoyer bu solide bu dëgër la ñuy def. pour comme ça ñu mën ko wëyal sur le long terme parce que xam nañ ne que xeex bii nii du léegi nii lay sotti. Mhm. mais ce sera un un un un travail boo xamante ni parce xam nga jigéen mhm. contre góor mais ak ak yelleefu xale moo moo ñu soxal loolu moo ñu ñor parce que avant tout nous sommes des mamans. Mhm. avant tout ay papa lañu. donc li soxal suñu njaboot. loolu moom moo ñu ñor tey. dëgg la euh, Maria loo leen di xaar ci euh, autorité yi. li ñuy xaar si ñoom mooy que ne ñu keroog bind nañu lettre ministre bi jagleel ko ministre premier ministre si réunion interministérielle mi ngi si doon wax. si waxee mi ngi naan nañu créer benn benn comité exécutif man mu ko bëgg wax bu baaxee juste que ne que exécutif boobu existé na ba pare parce que ñun avant ñuy jóg di si xeex AGS ñoom jugoon nañu. commencé sa xeex ba pare. Mhm. donc comité bi am na ba pare. Mhm. au lieu ñuy créé ba beneen na doon benn benn benn benn continuité. Mhm. au lieu ñuy delluwaat ba si ginnaaw. am na ñoo xamante ni xeex lañ ko fi wax nañ ko fi lii du problème boo xamante ni lu bees la fi. amoon na fi ba noppi donc ba doon benn continuité bu dekkee dafa am yi ñuy apporter changement yi ñuy apporter wala lu ñu war a dolli ñu dolli si mais ñoom nañ ci taxaw ba kot bi si boppam ñu xoolaat ko. dëgg la euh, Maria tey ñuy màggal euh, bés bu ñu jagleel euh, droit jigéen ñi mu mel ni folklore bi nëbb na euh, cent journée bi lan ngay wax jigéen ñi. d'abord dama leen di wax ne que tey du journée wu du journée xumbaay du journée mbumbaay du journée tàcc fecc niroole waaw baax na kenn terewu ko mais du journée toog fecc taasoo reetaan mhm. tey journée wu xam sa ak sax la ba di ko revendiquer mhm. dafa neex nga mhm. xam say droit ci lépp en toute chose dafa baax nga xam ne que ah yoon kat lii la ma may soo xamee ne ko yoon lii la la may mais di nga ko mën a xeex mais koo xamante ne xamul ak ak yelleefam kooku day dem rek ba suba mën na am benn problème après lay xam ne que ah mu kat lii kat xaw ma woon ne que baaxul te day baax ñun ñu xam ne que journée bi du journée niroowaale journée foo journée suñu ak yelleef ñu ba bay bay di ko revendiquer. dëgg la dëgg la Maria FM mu ngi lay sant di la gërëm. merci beaucoup euh, jërëjëf ci fàttali rek euh, yaa yor kàddu bokk itam ci collectif autorité parentale partagée sunu yite.